del déglu del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Dakar. But I see lii rek doy na conseil Merci. Merci. du du kër yi de. koo bëgg a jëlal sama copain. waaw. dama gis léegi dama gis mu àll ak ngay naan baax. waaw. ma gis ngay wax lan rem moo taw. ndax euh, nga am sa doom. Pape moom fi mu jaar ci aar. du Mouhamed du bëgg Mouhamed jaar fa. parce que àdduna dara yombul nag. mais parce que Pape fi mu jaar moo ko def li mu doon tey. mais ku ne xam nga ne da nga am ñeewantal sa doom. mbapat quoi. waaw maanaam Balla Gaye dama dégg mu ne moom bëggul doomam bëre parce que moom doon na guerrier boo xamante ni lu mu métti métti mi ngi koy dékku mais yërmande gu mu am ci doomam. moo tax mu ne moom bëggul doomam bëre. mais mais mais booy bi à cet âge là timbre bi ma dégg. déedéet moom moo awu fe moom moo awu morceau bi de. ah bi original bi. ah gisoo ci nekkee. moo ko awu de. mais man bëgguma way de ngëwél moom ngëwél moom wayu doy na ay ministre lañ soxla ay député non Mohamed sax day way parce que moom papa maa ngi nii nag di la waajal ñetti affaire ah. Ah, euh, bi waaw deux vingt trois moom maa ko moom loolu moom maa la ko mooy tey quoi tey moom tey tey non maa ko moom tey sa bés la non dégg tey jii kese kese ah. maanaam niñ ko commencé tey waaw ba décembre yàlla ñu yàlla may tal ak fekk ci barke Seydina Mohamed di nga gis beneen niveau ci Papa Ndiaye parce que toog nañ. mel ne xam nga affaire yoo jàncal gars yi quoi. waaw parce que xam nga mhm. bu la ñëpp di toppandoo. waaw da ngaa war di wut bagage yu bees. bàyyi say na ndax yi ñu jël li nga daan def yow nga indi leneen. Sadi Ndiaye dafa nekkoon ci affaire yu bees quoi. yu waaw du ko di ko seet nekkoon di di seet di di lijjanti. waaw musique recherche la. loolu mooy tax niveau bi di gën a dem parce que tey yow Papa Ndiaye yu bëri ngay gis. waaw nañ dañoo bëri. waaw léegi lu ma ci mën. bëgg ma rek moo tax ñu koy def dara waaw te ku ne ngi jël sa wërsëg kon donc man dama war a def lu bees dama war a. jaay kañ nga kañ nga gëj Paris. Paris. Hmm. di Bercy Bercy Pape Diouf. kon tey daal maanaam ça fait deux ans la xaw ma trois yoo xam ne. njaay am na lu bari lu muy waajal tey ñi ñi nga xam ne war nañ ñëw tey ci soirée de gala non tey moom loo xoolee la ma daan def Bercy rek laa defaat un mois laa nit ci géej gi gis nga affaire bi dem na leget. waaw fi mu toll kontaan nga. macha allah macha allah da nga ma daan woon naan ma Ndiaye leket gi maa la non damay noos. damaa toll ci noos laissez-moi. taay fin taay mannequin. waaw. non kon kon nañ jox gars yi rendez-vous ci kanam. non ba pare. yow il faut ma jàkkaarloog sa ñaari éléments yu grand yu. waaw non yow ak kii. waaw yow ak Jimbori. ak Jimbori foog nga dem fa. non bu ma jógee ci yow nii seen patron laa jàkkaarloog xam nga man moom moo woon fële ci maa ngi ñëw ci yéen yaa ngi Ndeye kon gars yi plateau topp kaa bu doy waar Papa Ndiaye moo leen ko promettre fii ci Paris. après le pa le Paris de Pape Diouf. bu jugee Paris rek dañuy programmer loolu plateau bu doy waar. mais nag Bamba. waaw lii maa la ko ñaan. waaw bu ko jàmbaar nga. ndeysaan guerrier nga. ndax yow xam nga ne man xam naa la. noo maa ngi yow dañoo dañoo dëkk ay. weer Bamba du wax waxu jàmbur. dañoo dëkk ay 3 mois Bamba du jàmbur. ndeysaan Bamba dafa bëgg avancé. macha allah su ma gisee Feeling Dakar def nii damay bëgg gouvernement bi. sénégalais yi ñëpp jàppale la. waaw jërëjëf parce que yow da nga bëgg avancé. ba pare jël ay nit